fi nekkee lee mat na 10 ans waaw wax dëgg yàlla waaye ndox mi moom bi mu commencé ñëw ay at la mais ren ji dafa raw man mii di wax ak yow fi may jaay nii léegi gis nga da ngeen ma fekk may doog a ubbi mat na 3 euh, 3 mois ngi bay jugg 4 mois xëy suuma parce que soo ñëwee fii day fees jal sonn nan nag wax dëgg yàlla lii moom ku ñu si dimbal leen bëgg sama mag moo daan débrouiller ñëw di ko déeme fi tan ni lu ne mu si dugg mais dafa dem dafa sonn dafa sonn parce que saa yu defaree ndox mi ñëwaat loolu mooy tam day xëy di liggéey moom mu borom kër la mënul chaque jour mu ne fi naan day nekk si ndox yi ñun daal sonn nañ ku ñu dimbali si ndox mii te yàlla tax ñu jël waaw sama mag moom sonn na trop sonn na ñëpp xam nañ ni moom sonn na parce que moom moo jàkkaarloo am ndox te ndox mi li si gën a bon mooy ndox mu bon la xam nga ndox mi baaxul xale yi di sëqat hmm, ñi dañu feebar ñëpp dañu amee dënn fi mu nekk nii waaw ñuy ñaan nag digg yàlla nguur gi nañu dimbali saafaraal lii wala ku ñu si mën a dimbali rek te yàlla te saafaraal na ko parce que ñun sonn nan suñu njaboot gi yëpp sonn nan chaque jour ñu def fii ay ñu def dépense fii mais ba léegi daal amaguñu solution gis nga raakool bi dañu fa monteel bi léeg-léeg xale dañ fiy jaar wala oto mu bëtt léegi benn nga bëtt nee ban teg si mbuus toile bale bu weex bale muy sotti ba mel ni géej fii man bu xasee bu ubbi moom damay tëj bu ndox mi ñëwee moom damay tëj parce que kenn dootu fi jaar kenn dootul jënd da naan koñ ba ndox ba nga ndox mu bon ma lañ sax euh, wax suñu koñ bi léegi ndox mu bon ma lañ ko tuddee xam nga loolu ti métti na waaw salaamaaleykum sëñ bi waa allo Dakar TV bi ñoo fi teewoon eh, bugg a wax eh, askan yoo fi dëkk fii mooy fii si APEX eh, dañoo gis ni que ndox mi dafa yàgg fii lool dañu bëggoon xam lu waral loolu bon ndox mi bon lu ñu ci xam moom mooy en tout cas man mi man mi man maa ngi fi depuis 2011 2011 jusqu'à présent ndox bi chaque année ni lay mel bii nag moo ci gën a empiré parce que bii dafa am ndoxu ndoxu foos yi ñooy versé wu fii parce que fii nawet ba nawet la daan taa mais léegi ndoxu foos yi ñoo ñëw versé wu fii waa ONAS ñoo ñu defal tuyau bi ngeen di seen nii mais tuyau bi dafa gën a yokk bagage yi dafa gën a salteel parce que fii ay ndox yu vert ak ay yu kenn xamul nga gis yu jàngoro bu nekk mën nañ ci génn woote nañ fu nekk grève nañu façon télé bu ne ñëw na fi mais wax nañ ba sonn mais mun dara mais dama xamul nag léegi lan ñun lan la gaay di xaar pour. am beneen def beneen solution quoi mais boobu ba léegi man daa affaire bi daal jaaxal na ma quoi man loolu moom mooy sama sama sama problème quoi ci affaire bi. ok gis ni que Yoff fii Abdoulaye Diouf Sarr moo moo fi moom ndaxte moo fi maire bi te est-ce que moom boobu ba léegi li li mu amee ba tey est-ce que ñëw na fi wala yónn na fi ay nitam. bon Abdoulaye Diouf Sarr moom ñëw na ba fii gis nga fii nga taxaw ni ba fii tiim ndox bi mu ne dinaa ko le mooy avant la veille tam xarit ñëw na fi. mais dina ko régler après tam xarit bi ñëw régler ko mais depuis loolu lañ ko gëjë gis lool mom lu ma gëna jaaxal ci la bok té mom nenañ moy maire fi quoi. waaw fim mu ndox bi sonal naa jaamu yalla yi waaw ay atangi ndox bi ni xam nga chaque jour daf fiy taa chaque jour chaque jour chaque jour daf fiy taa buñ ko defaree une benn jour deux jours mu moy président bu fi aw sax da ngay def ñu nettoyé tali bi bale ko ba mu set leer naññ ba ndox du génn mais bu jàllee loolu bu pay jàllee rek ndox bi génnaat appel ñu defar ko bu jàllee ndox bi génn daa am tuyau bu jaar nii wàcc géej ndox bi fa lay versé jëm biir géej xam nga loolu rafetul sax ak ak xabru jàmmalaay bi nekk fii xam nga naagisul ndax fi géej gi lay versé ajuma fii la gars yi di jaar wala julli ji am problème xam nga yi sa yëre yi oto yi dañ lay tiis mooy loolu boo waree cant sax doo mën a cant bilaay walaay ndox bi sonal nañu trop ba ci yàlla fi mu toll nii moom xam nañ ne moom ah gouvernement bi bu ñu si mënee jàppale ñëw liggéeyal ñu lii lii moom soxla nañ ko trop bu nekkee problème bi ONAS la ñu wax ak waa ONAS ñu defar lii parce que lii yàgg na fi trop booy grève nañ fi def nañ fi lu ne bu yàggee ay tawar lay indil jaamu yàlla ni ñu ñi ñu feebar te kenn du leen faj gars yi seen bopp lañ fi nekkal xool nañ ba xool gars yi seen bopp lañ fi nekkal. Mhm. asalaamaaleykum. ndox mi ñu ne bu ñu sañoon si rek ñu parce que ndox mi xeeñ na salte na ñun ñëpp feebar nañu toujours nag ñu wax Kazu Rajab bi taxul dara faju ñun ñiy jaay client yëpp daw nañ gis nga ni ma toogee nii damay toog waaye genn wàll gëm ñëwatu ñu jënd parce que xet gu bon gi moo tax te ñun li ñuy defar ni di si liggéey si la ñuy suturlu yor si suñu bopp yor si suñu njaboot di si dimbali suñu kër gi waaye gisatuñ kenn. bu ñu xëyee ndox maa ngi taaj ku bëgg a jàll amoo foo jàll élèves noonu kenn amul foo jaar pour dem si école bi xasaw xun waaw ñëw leen kenn amul foo jaar ndox mi mu ngi nii sonal nañu guddi sonal ñu bitti ñun fi mu ne bu ñu xëyee bu ñu bee néeg néegi day xasaw xun ñun ñëpp hôpital lañ dëkk parce que xet gu bon bi boo koy nokki bu yàggee sa da ngay am beneen feebar suñu doom yi suñu set yi ñëpp feebar nañ fii booy dem daalu cerax ngay doxe parce que mënoo sol daalu koket mënoo sol daalu uude cerax yi da ngay xuuse si ndox mi boo ñëwee teg eau de Javel chaque jour ñu ngi yor suñuy butéeli eau de Javel di sotti ku ñu si mën a dimbali na nga dimbali ñu si ñun waa APEX 1. waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen nuyu bu baax di la ziar di rafetlu laaj bi bu baax a baax ndax lii daa nekk loo xamante ni yàgg na fi lool te nakor lañ ko bu baax a baax a baax. ndox bi yàkkal nañu lu bëree bëri bëri ndax boo xoolee nawet gi yëpp daanaka suñu liggéey bi demewul noonu ndax clients yi dañuy teggi oto yi sax bu ñu jaaree fii rek ndox bi dugg ci biir palaas yeeg yooyu noonu loolu daal rafetlu ñu ko bu baax a baax a baax te fii tamit dëkk bu sell la di yoof maanaam waroon na gën a gën a kii daal comme nawet bi jeex na rek war nañ kaa gën a defar ba dara du fi amaat. waaw ndax dëkk bu sell la te ñu bëri dañ fiy jaar fii mooy yoon boo xamante ne mosquée bi la jëm directement di julli si jumaa te bu melee ne day ñaaw trop waroon nañ cee taxaw bu baax a baax ba du mel ni daal waaw loolu daal mooy nekkoon suñu xalaat ci ci kii bi ci wàllum ndox mi daal. yow mii di jaaykat yi yàpp te nekk fii ci Yoff eh, loolu est-ce que du la indil ay jafe-jafe sa diggante yow ak client yi. si si dafa may andil problème ak diggante client parce que client yu bëri perte naa leen. parce que fee dañ dañu bu ñuy kiire dañuy wër du ni ma sa place bi kiiwul dafa bari dafa bari ndox ak yooyu noonu loolu yëpp ay kii la daal sonal na ma ci torop waaw daanaka même boo xëyoon war a jaay lu bari sax da jaay lu ndaw yow sa yow miy jaay sax xam nga ne ndox mi moo leen di moo leen di gàllankoor ba du mën a agsi sa place. salaamaaleykum sëñ bi. waa Allo Dakar TV ñoo fi teewoon tey fii ci yoof mooy si APEXI eh, gis ni que état état ak ndox bi tammi ñu bëggoon ngeen wax seen xalaat ci loolu ak lan mo waral loolu. Euh, euh ñu ngi leen di nuyu yeen ñep di leen gërëm di leen ñaanal yalla di ñaan yalla yalla yalla barkel liggéey bi ndox mi mom vraiment am nañu si metti trop trop trop trop trop xeyna li ngeen dajé ak man si mbedd ni motax ma gëna mëna wax parce que amna ay autorité yu ne fi si biir quartier bi.

dama japp 5 ans yi rek mais ëpp na 5 ans ndox mi toujours fi lay ne déjà ñun ñëpp bo xolé suñu buntu kër yi ni mu bindo da ngay xamné ku nekk dafa yëkëti auteur pour ndox mi baña dugg sa kër la preuve nawetu ren bi daf ñu ëpp doolé de telle sorte que ndox mi dafa mujj dugg ci suñu biir kër mais amo foko joyé man suñu kër ak euh, Grand Matar franchement amuñu dañuy dañuy dem sax am problème fu ñu génnee gis daal la preuve bu ngeen filmer di ngeen gis ay briques yi ñu tek à côté briques yoy lañuy jël di ko tegle tout le temps pour mën di yóbbu pour pour nit ñi di man di génn.